exemple yi euh, euh, euh, Zak. mayaat leen ñu xalam parce que. suka Zak dañuy wax xalam te suka nekkul moo war a wax xalam ci xalam bi. kii dama jërëjëf ajaratu beti Mbuub ñi ngi am mbégte di am kontante di del si ak yéen ci seen rubrique bu mag bi nga xamante ni bi moom la ñuy wax pajum cosaan ñu ciy ànd ak seex baara Ndiaye borom def gis nga xamante ni bi macha allah àddina wër ngër këpp ñëpp dañuy àndandoo di bàyyi xel li nga xamante ni bi moom la ñuy wax rubrique bu mag bi Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat Ah, asamas billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala fala taxlamu nafsun ma uxfiya lahum min xurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yamal aji saa njoogu di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi ak ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyoo bi eh, sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi ak cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Sidil di nuyu Serigne Jiili moom Serigne Sidi Maxtaar ak soxna May Bintu Cheikh Sidil Maxtaar euh, di nuyu képp daal ko ñuy seetaan rek El Hadj Abdoul Aziz euh, ak maître maam Adama Guèye ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ak euh, képp ko nga xam ne yaa ngi topp émission bi rek. Hmm. jërëjëf Cheikh defe naa ni lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole jamono ji nga xamante ni moom lañ toll defe naa ni. am na vidéo boo xamante ni bii defoon nañ ko fii ci Walfajri sénégalais yi partagé nañ ko partagé boo xam ni kenn musta gis lu ni mel ci ab wax joo xamante ni bii waxoon nga ko sunu boroom am loo xamante ni bii dogal na ko ginnaaw bi loolu amee it nga gis ni boo ubbee tok tiktok yi Cheikh Bara fa ne boo ubbee li nga xamante ni bii moom la yor Facebook Cheikh Bara fa ne YouTube Cheikh Bara fa ne Instagram Cheikh Bara fa ne li nga xamante ni bii moom la ñuy wax télé yi ñoom ci seen jëmmi bopp tamit Cheikh Bara fa ne Cheikh Bara mu mel ni macha allah la nga xamante ni bii moom nga waxoon mu jëm ci juge Samba Sall defe naa ba nga xamante ni bii wax nga tamit am na lu xew am dogal boo xamante ni bii xew na nit ñi nag jël loolu daal di ne ah Cheikh Bara Ndiaye lim fi waxoon a ngi nii waxoon a ngi nii lim waxoon a ngi nii. mbir moomu noo ko jàngatee nga xam ni foo tourné ak façon commentaire bu ne nit def na ko ci nit ñi am nañ ci gis-gis bi bu ne yow mbir moomu noo dundee loolu seex Bara parce que semaine bi defe naa ni am na ñoo xam ni sax boo defu ndànk yeneen mënoon na laa fay sax pour tàllal la micro pour nga wax waaye yàlla dafa dogal fii nga waxee Cheikh Bara Ndiaye borom def li Cheikh Bara noo gisee mbir waa di njëkk wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy mm-hmm. Euh, ñaanal euh, sam Moussa Samba sàll suñ mm. borom jéggal ko taxaare ko àjjana amiin te fi mu féete woon senegal ak njabootam yàlla féete leen fa amiin euh, xam naa ni nga ko waxee nag loolu moom dund naa ko bu baax a baax mm. parce keroog bii loolu di am dafa fekk maa ngi jóge fii mm. benn avocat bu ñuy wax maître Diallo sama avocat moom a woo yëgal ma ko ma yëg ko après nag ma gis ñu baree baree bari bi affaire bi amee dañ may téléphoné. Mhm. sëñ Baara Samba Sall gaañu na yënga ko après ma tamit laa gis ñu ñi indiwaat vidéo bi nga xamante ne waxoon nañ ko fii. waaw waaye nag xalaa ku luwaalin tamit euh, dina ci am ay leeral yu ma ci def nag mooy. Mhm. ñun duñu toog fii di ndamoo ku dee wala di ndamoo ak dee wala dara. wala di mhm. di sax bëgg ci ku dee ndax lu mu dee lu mu lu mu néew néew rek. Samba Sall am na lu mu doon jariñ Sénégal loo xam ne man mënaluma ko ko. am na fu mu féete woon ak njabootam tamit jàpp naa ne Sénégal soxla woon na ko donte nag ñun ay sëriñ lañ yoo xam ne dañuy yëngatu ci mbirum ñaan ak lasaraar loolu yaakaar naa moo tax ñu toog fii di wax mm. la boo xam ne tamit euh, dëgg la nag man maa waxoon ne fii mm. euh, lu ko jiitu dama waxoon ne xaw ma ci palaato laa ko waxe woon xaw ma samay nit laa ko waxoon mm-hmm. Sonko ñi ngi ko woo mu war a wuy ji Euh, siis sec siis sec mooy ki nekk xorfatu samaniya mu ki huitième cabinet kabine waaye duñ gisante mm-hmm. duñ toog waaw Sonko jóge na këram taal otoom ne day dem ci siis bi waaye mujj ñu toog bañ fa jógee juge boobu dal di démissionné bàyyi mm-hmm. ci lu gaaw ñu dugal ku ñuy wax sàmba Sall mu ñu yor dossier bi ci laa la wax ma ne la Samba Sall kat dafa dafa bett dugg moo tax mu toog ak Sonko. Mm. waaye ah, sii fural mbiram nga xool ba ci kanam. ci nga ma wax ne ma ah ma ne la waaw dinaa toogaat fii dee ko topp rek nga di xool ki ñuy wax Samba Sall. Mm-hmm. loolu nag nekkul ne euh, bu amee maanaam ni ma ko waxee woon bu amee dafa nekk lu ñuy ndamoo wala dafa nekk loo xamante ne ñun ñoo ko def. Mm-hmm. wala dara waaye lu ñu xam la rek mu nekk ci suñ biir liggéey ñu di ko wax. te loolu mm-hmm. yaakaar naa ne jiituwuma ci Samba njëkk na fii ma toog fii nga laaj ma ma ne la coon sekk. dafa am liggéey yu nekk ci xolom dañ ko jàpp ci xol bi ak yaramam hmm. bi ma ko waxee yàlla dogal Thione Seck ñëw émission balance dëggal ne waaw fi ma wax laal sama loxo muy metti sax mu ne sama fii mooy metti après yow nga woo Thione Seck waaw woo naa ko waaw jox ma ko jox ko ko sama numéro ne ko na ma woo Thione hmm. di ma woo jotuma ba nga woo ma yow ne ma wuyul ki lay numéro yo numéro bu yomb boobu li la woo Thione la ma wuyu ko waxtaan ak moom mu ne ma man damay ñëw ci yow nga dimbali ma daal parce que li nga wax ni effectivement mm-hmm. moo nekk ci man mm-hmm. ñu jóge ci waaye yàlla mi dara tawul def na jotaay boobu mu jul am liñ ci tegee lu man ñaari weer ñetti weer xam naa mu daal di génn àdduna mm-hmm. kon donc du taxaw nga ne man maa rey coon sekk waaye am na lu ma gisoon ci moom toog fii wax ko du ko jiitu tamit yaakaar naa Ousmane Sonko toogoon naa fii avant jàpp bii di am ak yëpp waxoon naa am na lu ma lu ma waxoon fii na jóg ci kii bi mu fi jógee waxoon naa la sëñ Baara Jenn woon wax na ma ne ma demal nga wax nga wax ak fexee la wax ak Ousmane Sonko ba ma dox ay jéego pour wax ceeg Ousmane mm. mais mu jul sotti mm. lu ko toppaat tamit euh, capitaine Touré waaw Basirou Ndiaye mi nekk section de recherche mi ngi may dégg ànd na ma ak moom ay yooni yooni yoon ñuy dox pour man ma jóg dem fekki capitaine pour dimbali ko mu bañ a démissionner. man xam naa li ko dal xam naa lan la te xam naa ne mën naa ko koo dindi mm-hmm. Basirou njaay mook moom ay ay naataangoo lañ yuy liggéey. Mm-hmm. man mii ak moom dox nañ ci lu bari loo xam ne doo ko mën a wax ci tere may yàlla dogal na mujj ñu gisante man ak capitaine. Mm-hmm. ba ci Samba Sall mii. waaw am na magistrat boo xam ne. dama waxoon sax ne la dama ko dama ah, laa waxoon nga ne ma bul fi tudd kilifa yu mel noonu message yi ñu esaasante mi ngi nii wax naa ko ma ne ko woo naa ko téléphone ba mu soxnaam laa woo mu jox ma ko ma ne ko bu fekkee xam nga Samba Sall wax ko mu jéem a nu def la tout def ni si sekk def mooy mu génn ci dossier Sonko bii hmm. parce que man li ma ci xam su ci avancé hmm. boo moytuwul du baax ci moom te wax naa ko si ay wax yu nga xam ne moo gën a leer parce que télé nit mënu see toog di wax yenn wax yi ku am ay mbokk di am di sa mbokkum sénégalais di sa mbokkum jullit mm-hmm. te waxu télé dafa doy waar mm-hmm. waaye leeral naa ko lu baree bari moom magistrat boobu bi ma ko ko waxee mi ngi nii mu message ma jox ma numéro personnel na ma li nga wax c'est très important dina fexe def le tout li nga wax sàmba dina ko dégg dinañ xool noo nuñ def ma ne ko même bu fekkee mm-hmm. liggéeyam mayu ko mu génn ci na taxaw ci yaramam mu ñaanlu ci sinon du gën loolu man wax naa ko mu ngi nii message yaa ngi nii mën naa la ko wan. waaw te boobu moom xam na man mi ngi may seetaan. waaw dëgg la. kon man su ma sañoon lii am du am. dëgg la su ma sañoon lii am du am. parce que bu ma waxee ba pare man jéem na maa dox ay jéego pour dimbali Samba Sall pour li ma gisoon mu bañ ci dugg. waaw mais nag euh, jaam ak. pexem ak kenn ku nekk nag. Mm-hmm. fa yàlla dogal sa bis. Mm-hmm. loolu noonu la yàlla noonu la ko yàlla tëralee. waaye pour leeral rek euh, noonu la demee. Mm-hmm. lépp nag dafa nekk loo xam ne dossier politique la. ñu bari ñu ngi ci dugg. Mm. di doxal. Mm. ñun ci liñ nekk di ci liggéey. Mm. dafa am lu ñu ci xam. loo xam ne loolu duma ko wax pour bàkku duma ko wax pour lii waaye bi ma xàmmee sama ba ma ci laa judd ci laa yaru ci laa màgg donc man xam naa ko. ñu bari nag dangay toog ci télé nga wax. Mm-hmm. duñ ko jàppee waxi dara. ba mu ne tëll. ñu ne voilà gis nga ko mi ngi nii. dëgg loolu. Mm. moom mooy mooy mooy problème bi. waaw doo naa waxoon naa te affaire Sonko bii noonu laa ci gisewaat yeneen yoo xamante ne. Ah, ah, ah. non non dama lay wax rek. waaw du ma xam nga affaire baatin nag. waaw ko toog ci télé sax di ko waxtaanee. waaw mais noonu nga ciy gisawaat yeneen yoo xam ne tey. su mm-hmm. fekkoon su dul su fekkoonte ne lu dul télé. Mm-hmm. di nga mën a wax di wax nii. Mm-hmm. ne nangam nangam yu bëri. waaw waaw. kon daal waaye nag dootuma ci waxati nag. dootoo ci ci affaire ci côté aspect mystique. non mais waxoon nga ni di nga ñu leeral. ci loolu bàyyi naa mystique lu tax nga génn. dama koy bàyyi. ah waaw. ah Cheikh Bara yaa ko fi liggéey ah, ko wax léegi. mooy sama liggéey mais nag dafa am. lii moo la fi indi lasraar li ngay wax ci Sénégal yëpp xam nañu ni. waaw bu doon yow deegu ni dafa ne sa loxo doo ko rey. mais dafa am lu la yàlla wan. yàlla xam wallaahi asim woo naa magistrat. waaw waxtaan ak moom ba message ma ay message dëgg la waaw ma numéro bii sama numéro personnel la xàmmee ko fu ma la téléphoné rek wuyul. Mm-hmm. mu ngi nii dinaa la woon message su ma paree. dëgg la donc kon man reyu ma kenn. d'accord voilà te waaw da toog par exemple gis dara loo xamante ne daf lay wóor ne lii. Mm-hmm. ku ma jox kaamin gis nga Ousmane Sonko keroog bi muy jëm ci Zizek. Mm-hmm. mi ngi ma fekk ci saal man ak ñu bari ma ne ku ma jox kaamin ma waat ne Ousmane Sonko doo yegg ci Ziz bi. parce que loolu mystique la boo xam ne dafa leer naññi kii ak kii duñ toog di wax ci lii juge hmm. Samba Sall yàllaa ko rey de waaye bi sababu sihra maanaam dañ koo liggéey mu dee hmm. loolu moom moo am hmm? oui jëlal le wit mars la toog ak usmaan Sonko waaw le huit avril la faatu même heure bi mu toog ak usmaan Sonko jàpp naa ne même heure boobu ci la génn àdduna kon am na lu nga xam ne mënoo toog naan ay hasard la hasard la nii déedéet. Hmm. du hasard mystique dafa am lu mën loo xam ne da ngay taxaw nga ne lii. Hmm. lii du am. lii du fi xewe hmm. te effet te kenn mënta wax ba xewal ko ku ko bëgg a xewal it du moom yow mën na laa bañ a jig. Ah. te boo te amoo foo koy waxee man gis naa man. ma waxaati sax gis naa Farba Ngom man ah, ah, far Farba Ngom men man gis naa ko mu yor ay picc yu bëri waaw ah picc yi jékki-jékki rëcc di ko lekk ba mu daanu eh non gis naa ko Farba Ngom wallaahi asim <laughs> te xam nga loolu man xaw xaw ma loolu noo am gis naa ko far Farba Ngom taw loolu wóor na ma ne su ma ko topp su ma la su ma ko détaillé woon da ngay lay wóor na li ci affaire am na yoo xam ne sax jërëjëf di leeral leeral leeral mais loolu gis naa ko. kii sobaar euh, kii leeralal. kenn picc la <laughs> gis naa picc yi di ko jàpp ko di ko lekk moom ci boppam. waaw loolu mooy lan la Cheikh Bara moo leen yore woon ñu rëcc ko. moo la yoroon picc picc yi rëcc ko. Ah, loolu loolu mystique boo def la mu contre la. loolu mbaa du. lu dellu ci yow booy def la mu contre la. ah bu fekkee am. lu mu def la mu rëcc. mystique booy def la mu contre la. Uh-huh. picc yeeg tourné laajal keneen ku am xam-xam koo wóolu. farba ngam de xam naa saa nag ñu sori yéen a def saa. Cheikh Bara macha allah li nga wax noonu doy na Cheikh Bara ñu jublu nag ci li nga xam ne moom la ñuy wax élection yi nga xam ni.